Diouf njiit bu réew bu Sénégal président Macky Sall arrivé na fii ci Argentine tey jii ci dimanche ji bi 5 heures jotee ba lu néew ci ay simili mu daal di wuy si ab invitation boo xam ni moom lañ ko fi invité muy sa olympique yi. yi nga xam ni moom la ñu amal fii mille Argentine deux ñu nar ko nag organiser fële ci réew bu Sénégal président Macky Sall nag bi mu ñëwee ci hôtel bi muy dal fekk na fa limu doomu sénégalais yu bari ñenn ñi ñi ngi fésal ñàkk gu ñu ñàkk ànd ak moom di ko ko wan ci ay nataal waaye it ci ay kàddu yu jip waaye it di ko ko wan ci ay mbubb yu ruus yu ñu sol. fekk na fi nag it ñu ànd ak moom ñoo it ñoo xam ni ñu ngay fësal ak ànd gu ñu ànd ak moom bi mu ñëwee nag dalal na responsable yi fi nekk bokk na ci jëwriñ yi daayira yi mbokk soxna yi waaye it ñi nga xam ne ñoo koy jàppal fii muy waa APR daal dina yëkkati nag lu toll ci 5000 euro jox ko mbokk yi nga xam ni moom ñoo fi faatu ngir ñu dellu leen Sénégal waaye it yëkkati 5000 euros. jox ko daayira murid yi yëkkati mille euros jox daayira tijaan yi yëkkati nag lu toll ci vingt 20000 euro maanaam buñ ko doon xayma ci xaalisu réew mi daanaka mat na un million peso yu manqué 40 mille daal di koy jox parti bi nga xam ni mu ñoo leen jàppal tànk fàttali nag lu jiitu ñaari fan ki nga xam ni moom moo di ambassadeur bi ko nekkal fële ci Brésil ñëw na fi moom sax mu ànd ak moom tournée bi nga xam ni it war na ko def fii war na fi nekk kon ba incha allah le 9 mu war a delluwaat fuli ci réew bu senegal